Thank you ko xaritam di jàmm yi seetaan tey safoo bataaxal tv bataaxal fm www point bataaxal point net ñu ngi di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp tey teewlu saa su nekk suñu ay xibaar tey lu ñeel actualité bokk na ci ni femme boobee nga xamante ne moom la ñu daal di faat bakkanam foofee ca Ngor ci appartement am ko fësal xibaar ba ni ki démb a Ngoone Saliou Ngoone Saliou nag la mu yëgle ci page am boobee di Facebook rek am na benn femme bu ñu daal di fataat ci appartement Congox daanaka daal acte boobee mën nañ ñi app répétition la ndaxte moom ba tey Ngoné Saliou ma ngay xamle ni euh, ki nga xamante ni moo def ñaawteef bi donte takk der yi tegaguñ ko loxo sax waaye ñoo ngi yëgle ni rek euh, caméra de surveillance yi nekkoon ci buntu immeuble boobee daal dina koy trahir waaja nag ah, dinañ ci daal di ñëw ndaxte nag kaawu ndaw sile def ñoo daal di fàttali euh, kaaw ki nga xamante ni moom moo di Aziza Dabala ci anam bu ni mel daanaka daal di génnee àdduna ci mbedd 2 wala sax ci koñ waaye ci biir appartement am la ñu daal di fàtte moom ah, mbir moomee sookee sénégalais yi ba tax nañu ci bari si ñoom nag ñoo nga yëy di ca yëkkati ay kàddu waaye itam ñoo ngi xamle ni loolee dafa daal di jot sëkk nag ngir ñu daal di koy stoppé ndax mënuñu concevoir wala ñu mën a jàpp benn yoon que ni ci fii nii ci ah, réew ma Sénégal ah, dinañu continuer rek nit ñi di gën a nekk di gën a nekk di ñàkk li nga xamante ni moom moo di seenub sécurité ba ci sax seen biiru kër ginnaaw loolee gis nañu ni suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk foofee Euh, ca euh, Seneweb rek nee nañu daal di nañ fa yamala bu descente waaye nag jusqu'à présent ñi nga xamante ni ñoo susoon ca ndaw sa ñemewuñu wala sax parewuñu benn yoon ngir fësal li nga xamante ni moom moo di ab nataalam la ñu daal di xam la rek mooy que ni ci ñaari xaritam lañu ñu daal yem ñaari xaritam yooyu nag la ñu leen daal di jox ci ab information as néew mooy que ni ndaw suñu faat bakkanam ci turu koddu lay daal di wuyoo koddu moom ab Thiessoise la foofee di bàyyeekoo maamam la dëkkaloon ndax way juróom jigéen dafa daal di teel a génn àdduna Codou yoroon na ab tout tànk bu ndaw boo xamante ni moom moo ko daal di jur ñëwoon Dakar nag ngir daan doole mën a dimbali ki nga xamante ni moom moo di maamam waaye itam nag mën koo génnee ci situation bi nga xamante ni moom la daal di tollee ñaari xaritam la ñoo ngi yëgle tey xam le ni bés bi nga xamante ni ci la ñu faat Codou ñoom ñett ñoo toogoon ba trois heures du matin laat daanaka dañoo génn rek ñaawteef boobee daal di euh, xew nee nañu nag ki nga xamante ni moo faat bakkanam mënuñu ci wax lu bari ndaxte nag mbir ma dafa daal di nekk ci loxol yoon te lu nekk ci loxol yoon doo ko daal di jiitu benn yoon wala nga cee daal di am akup problème waaye la ñu daal di saytu te xam ko mooy que nii d'après caméra de surveillance yi nga xamante ni ñoo tra ñoo tra trahir euh, boobee meurtrier nee nañu ab jàllaabe la soloon jàllaabe bu weex a daanaka bu mu génnee daal euh, yële caméra daal dinañ koy jël ndaxte am na ko mu daal di fekk ci euh, porte bi kooku la daal di àndal dem yoonam mu mel ne nag waaye ju ko def jamono ji ngir mu daal di cay génn dina nekk lu metti lool ci moom wala sax daw bërë ci nekkatul loo xamante ni moom dina ko daal di yomb ndaxte bu fekkante ni meurtrier wu kii nii di Aziz Dabala jusqu'à présent déclaré wuñ leen ne officiel que ne ñoom ñoo ko daal di amal jusqu'à présent ñoo ngi wel doon présumé ndax nag fekk ñu foofee caméra de surveillance boo xamante ni rek jël na ab kanam wala mu jël am jëmm waaye nag kaawu kodd mën nañ ñi nag ndax ki ko def moom yile caméra de surveillance daf ko daal di trahir lenn rek moo ci des mooy que ni justice daal di koy topp fépp fu mu mënti nekk ci Sénégal ak rukk bu mu mënti làkkatu ñu daal koy jël teg ko ci loxol Ah, ci nakar ak tiis métit dong lay daal di doone ndax jusqu'à présent ñoo ngi gis ni ah, kii nga xamante ni moom moo di woy juróom bu jigéen ay mbokkam ak ay xaritam ñoo ngi wéyal di jooy ndax la ñuy ñaxtu ah, du lenn lu dul lekk que ni justice bi daal di baral ab loxoom ngir que ñu daal di leen di wax diw ak diw ñoo daal di faat bakkan ak ci nan ak naka lañ ko daal di amalee lu waral ñu daal di koy ab ñetti question yooyu rek la ñuy daal di laaj justice te moom lañ ko daal di dénk ngir ñu daal di cay def liggéeyam mu gën a gaawee jàpp nañ ni ay doomu aadama yu bari daanaka lu toll ci juróom ñetti nit ni ñoom ca présumé ya la ñu daal di bokk mais présumé nag taxul nga doon coupable officiel nee ñu nag nañ leen daal di dimbali rek leeral génn ko àdduna bu Aziz Dabala boobee loolu dong mooy tax seen xel daal di dal waaye loolu dong mooy tax ba fu ñu tëddee rek du ñu tuurati ndax dinañu xam ni donte Aziz Dabala daal di ne génn àdduna ci anam yoo xamante ni ñaaw na lool te metti waaye nag bis bu ñu xamee ñu ko daal di def day tax ñoom tamit ñu daal am tuuti li nga xamante ni moom moo di la paix du cœur ndaxte jusqu'à présent ah, seen xel dafa daal di jaxasoo rawatina ci xaritam boobee nga xamante ne moom nañu daal di teg loxo ah, di Nabou Leye lu ñu gën a mën a leeral ay mbiram na mu gën a gaawee mu ñu xam ni takk na ca am takku ca loolee dafay daal di dalal ah, seen xel